alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba ñu sant yàlla jullit ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba di jaajëfal Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla suñu borom mu yàggal fi Cheikh Amadou Mountakha ba lim naa la liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko te ànd koog jullit ak taalibe ci barke Serigne Touba di ñaanal yàlla dool la ñu kattan ak tawfeex ba liggéey bi nga xam ne yéen nañ ko liggéey ci dëkk bi yàlla may ñu ndam ak kattan ak wërsëg wuñ ko mën a jëfe ci barke Serigne Touba tey nag di am mbégte bu baax a baax ci jotaay bi nga xam ne jotaay nañ ko ci ëttu sëñ Touba bi ci jumaay sëñ Touba ji waa kër sëñ Touba yi bokk ak ñoom déglu waxtaan wi fi amoon ci ngoon mi waxtaan solo bokk ñoom ñu berndeel ñu ngir jëmmi sëñ Touba ji bu yëkkati ay kàddu di ko jëm ngir jëmmi sëñ Touba ji di wax ci turu Serigne xaarim Diop mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ñu ànd ak jëwriñ yi nga xam ne si nag ñoom lañ seqal fédération Majmahun Nurayni bépp bi nga xam ne si ne mooy daayira menuisier bi lëkkalee menuisier yi Touba yëpp toll ci ñaar fukki section ak ñett nekk Touba section bu ci nekk am na kuréel bu fa ne am mbooloo mu fa ne tey yàlla dogal taay rek xidmatu xidma invité ñu tey ci jotaay bii nga xam si ne euh, sant nañ ci yàlla baax ndax jafe woon na bu du woon daayira mën naa duñ ko am kon wax dëgg yàlla daayira yokk nañu nam ñu yokkee nag mooy dimbali nañu ba tey jumaa ji ku fi dugg gis bunt yi ne daayira koo def ñu ne daayira menuisier Touba te nekk Touba tey yàlla dogal sa loxo dem ca loolu sant yàlla la mënoon nañoo dund ba dee ndax bunt yi daawuñu ko defaree Touba wala daawuñu ko defaree sax Sénégal kon bu ñu yàlla dimbalee ci ak mbaaxam ak sëñ bëgg ñoo liggéeyloo ba ñu gis bunt yi ne xalaat ne war nañ ko def wax ci sëñ bi sëñ bi de loolu de mi ngi woon ci am xelam ñu defar ko ba mu tëjeeg tawféexu sëriñ bi loolu dañ ci sant yàlla baax xanaa di feddali suñu wëllër ak yéen yéen ñi nga xam ne yéen ñu nekkal si jumaa ji ñu de ñooy seenu dàll ñooy seen loxo lépp loo xam ne aajowoo ngeen ko ci wàllu bois incha allah bu ñu ko yëgee comme nañ ko waxee woon incha allah luñ ci mën dañ ci liggéey sëñ Tuubaa loolu daal fas ko yéene ñu ñaan yàlla suñu borom mu doole ñu kattan xam ne daayira bi nag lu yàgg la ndax suñuy bàyyee koy ron suñu bàyyee dañoo dem ba yàlla dogal mag jàpp leen ñu jël liggéey bi joxuñu ko ñun ñi ñoo ci gën nekk ay ndaw sëñ Sidi Fall a ngi fi sëñ Xaadim Jóob ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam bu ñu leen doon dañuy bari lool waaye dañoo tànn juróomi ndaw ñi ne leen dem leen ngeen teewal ñu ci liggéey ba sëñ bi daal ñuy wax ne bég nañ lool kontaan nañ lool suñu xol sedd na baax a baax moom daal ku ñuy ñaanal nangu ñaanal ñu mën a jekku ndigal rek ñu ngi ñuy jekku rek baax a baax